salaamaaleykum mbokk yi noonu nañ leen bu baax a baax ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di amaat mbégte lool jàkkaarloo waat ak yenn sur la set TV ci seen émission 7 voix du cœur comme d'habitude tous les mardis ñu ànd ceeg yéen rek ak ñi nga xam ne ñoo ne ci néegi yi weet lool daal di rek jaaxle ba tax na ñu leen fay fekk di ci waxtaan ak ñoom waaye di ko génnee ñu ci jéem wut solution tey ñu ngi fii ci jàmm gën ñu ñëw seet si Amadou Wuri jàlloo di kenn ci ñi nga xam ne rek euh, sollicité nañ ñu ci émission bii di cest Voix du ñu fas yéene ànd ak moom tey nag ndax nag mu yore tànk bu metti métti métti métti metti tànk boo xam ne yéem na ko lool ginnaaw ba mu defee choc fële ci moto ci Guinée ca lañ ko indi fii ci Sénégal muy faju waaye moyen bi néew lool lool lool ñu defoon feer bu rëy ci tànk bi feer boobu nag dema dema dema dema dem ba tànk bi yàqu ba feer bi woddal boppam jamono ji mu jaaxle lool ci boppam soxnaam toog ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo euh, daal di ñuy wax naka la ñuy dundee loolu ak jamono ji fan la yëf yi toll madame nuyu nañ la bu baax a baax. asalaamaaleykum sama mbokku julli ji man mooy jabar Julde jàll mm-hmm. pour de jàll daa amoon accident accident bi léegi noonu damaa yor ay jaboot mhm. man tamit demaa feebar ñetti at am naa jabet mhm. amut awma sax moyen pour faj mhm. sauf ki kii de damay daaneel waaye mënatuma faj damay jënd comprimé calmant waaye mënatuma faj damaa war a dem hôpital ma faj amu amu awma moom tamit accident bi yàgg na si moom. accident bi c'était en quelle année. 2009 waaw. 2009 la defoon accident euh, yàgg na ginnaaw bu mu defee accident. Hmm. Euh, daa def accident ngeen ñëw si saa si ñibbi si ñëw fii wala. waaw dañuy dafa def accident bi ba pare. Hmm. après ñu ñëw fii mu commencé fajoo Dantec. Hmm. léegi accident bi lan la woon. accident moto. moto moom moo doon moto boppam la yoroon. di daan léegi nag. mu ñëw Sénégal fii. avant moo ñëw Sénégal nañ ñëw ci accident bi naka la demee. accident bi dafa daanoon daal soo ko daa dem marché après mu daan léegi soo ko gisee ah, nit ñi yëkkat nit ñi woon fu mu daanoon yaakaar yoon daa dee parce que lameen bi dafa duggoon ci biir sax. Hmm. yaram bi yëpp yàq. Hmm. yaa may dégg après ambulance yi jël ko foofu yóbbu ko hôpital bu nekk Guinée bi nekk na foofu at. ci biir mm-hmm. hôpital bi. ci biir foofu laa doon dem marché ma ñëw ndugg si ci biir hôpital bi. damay dégg après tànk bi nangul daal mu faj foofu ba xaalis bi jeex après mu ñëwaate Sénégal. foofu lañ ko defalee fer bi nga yor nii. ci tànk waaw boobu dindi dindi nañ ko bii danteke la ko defee. ah bii danteke lañ ko waaw après ñu ñëwaate danteke fii. léegi nan dante danteke moo def feer mais yow bi bi ñu lay yëgal ne dafa def accident fan la la fekk. ah kañ lañ la wax dafa def accident yaa ngi sa kër toog. ñu sama kër toog waaw si loolu. ba pare nga expliqué maa ngi woon si sama kër. Mhm. après mu woo ma ah kii day daa daa dem marché waaye daan na def na as soog. Mhm. yóbbu neen ko hôpital bu mag bu génn après ma jub bàyyi sama liggéey bi jub dem topp ko mhm. parce que moom mooy mag si kër gi. mooy may mag bi kii ay rakkam yi ay jabootu yu sew jigéen. xam nga kooku mun ñoom munu koo jàppale mhm. léegi nag papam gaañ na yaayam daa daanoon feebar ba léegi mënatul dugg ana yaayam yaayam mu ngi ah, gine waaye mënul dugg xanaa soo ko yëkkatee nga yëkkati ko su buggee tedd nga jàppale ko mu tedd mënatul dara daal mhm. léegi boobu yow ñaata doom boobu ah? nga def accident bi mu defee accident bi am naa kii am naa ñetti doom. am nga ñetti doom léegi léegi amaat naa doom mooy ñeenti doom. Mm-hmm. waaw am naa ñaar doom ñaar doom yu jigéen ak ñaar doom yu góor waaye mm-hmm. doom yu sew la. Mm-hmm. jaboot la awma doom bu mag. léegi nag mu ñëw mu ñëw Sénégal fii léegi mu dem dante buñ la waxee buñ la waxee def na accident nga dem hôpital ba. Euh, bu nga ko gisee naka la demee. ah ma ko gisee moom damaa jooy jooy bu métti. wallaay dama jooy jooy bu metti parce que man kese moo àndal moom moom rakk yi mu yor dafa sëy nekk ci sëyam bi am jaboot mhm. léegi papam gaañu na mhm. yaay mënatul dem pour toppatoo ko mhm. léegi man mu amee accident bi day mu nekk ba léegi may àndal moom nga dugg ci si hôpital bi naka la demee bés boobu léegi ma dem si hôpital bi après mu mu mu ko dugal feer ci tànk yi léegi mu tabax ko mu dem defaate kii bi mu dem defaate rajo affaire bi normal bi nga ñëwee dugg mu gis la naka la demee. moom moom lu ma gisee xamatuma sax. ah dafa pertoon connaissance. xamatuma sax moom juróom fan mënul wax. mun mun doo ñëw fii mu wax kii kii moo ñëw fii du la xam waaw. Mm-hmm. mu dugal ko bloc mu génn mu kii mu commencé kii ndànk ndànk ndànk ndànk après noonu nekk noonu daal nekk foofu hôpital bi mu toppatoo ko ba mu xam daal moyen bi kii na wàññi na xam nga hôpital xaalis la. Mm-hmm. après mu waa ah dem leen. ñibbi leen après ngeen ñëw par rendez-vous. Ah, léegi rendez-vous loolu lu mu. boo fekk na at ci hôpital. waaw at def naa ko ci biir hôpital damay dem mars ma toog ma ma ñëw taal añ ci biir hopital bi. ci biir hôpital wallaay tallaay waaw. Hmm? bu ndaw damay dem ma dugg ñëw toog hôpital bi at. muy ci biir hôpital at boobu. daal man depuis ma kii mu depuis mu am accident moom jamono bi de maa ngi yaram daal man lu ma wax ci doomu aadama yi nit fu mu nekk moom yàlla na ko yàlla may jàmm asalaam depuis mu am accident bi ba léegi doomu aadama yi ah, doomu aadama yi moo may jàppale moom mënatul liggéey aw doom bu mag ku may jàppale mm-hmm. moom amul benn mbokk ku may jàppale doomu aadama yi rek ñoo may jàppale waaw. yëf ci nga jóge Guinée. Ah? ànd ak moom ñëw fii. léegi ma jóge Guinée. ak say doom. waaw man a samay doom ma àndal moom ñëw fii damay dégg léegi ma ñëw fii ma dëkk fii ñii ay sama dëkkandoo la. Hmm. depuis ma ñëw fii ñooñu ñooy togg añi di ma may añ ndox su may rootee. ma ne kaay root damay dégg sama jabootu yi ñun ñëpp dañuy yërëm sama man a sama jabootu man yàgg giñ naa togg añ waaye damay lekk ba man a sama jaboot yi mm-hmm. sama dëkkandoor yi ma dëkkandoor yi baaxul bi ngeen ñëwee da ñëw wut luwaas waaw fii dama koo luwe damaa luwe fii non balaa ngay dëkk fii am na foo dëkkoon ah? njëkkoon dëkk waaw fole laa njëkkoon dëkk kenn ñoom makkal ma luwe foofu nekk foofu am naa foofu at ma jóge foofu ñëw kër be kër bitiki bi après ma jóge si kër boobu ñëw fii mm-hmm. depuis ma ñëw fii noonu léegi fii laa nekk mm-hmm. waaw euh, fii nga nekk nekk ak moom mu metti lool ndax nag euh, tànk bi metti na mm-hmm. feer bi tànk buñ ko dugal waaw boromam nekku ci jàmm mhm. euh, yaa ngi nekk ak say dëkkandoo ñu ngi lay jàppale mhm. en tant que pël ak sénégalais mhm. euh, guinéen ak sénégalais ma bàyyi la rek euh, ñu dem seetaani ñoom tamit naka lañ ko dundee wala laata loolu sax dañuy dem seetaani malade bi daal de soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV asalaamaaleykum aray ko min jallama julde diallo aray ko asida woni komi waɗi asida gon ko asida moto woni komi waɗi aray noon mi gerdi e muɗum woni duuɓi joni aray moyen on ɗuuɗa mi gerdi e muɗum ha fewdoɗoɗe aray nde tori jama julɓe ɓen ballal ko allah hooti annabijo yo ɓe wallitolam fino mi heɓira lekki sabuna fewdo ɗo miɗo wondi e tampere moyen on ɗuuɗa ballo on kadi fewdo ɗo ko ɗum woni miɗo barke allah e julɓe ɓen dal kono moygo woni ɗuuɗa nde wondi e e ɓeygu e paykoye moygon aray asidan on noon woni ko ne ko ko ɗo aray moygon ɗuuɗa jama julɓe ɓe walli kono ha joni samorali aray faymiɗo toriti ballal fi allah ene laaɗo kala man yiiɗo message on aray koyo walliranka fi sabi allah wotte annabijo no mi heɓira lekki haranɗo tori jamaje on fof ballal ko saabi allah noon aray ko 80 ko 2019 2019 woni gila on tuma mi gerde muɗum ha ɗo ha joni samorali aray gila on tuma miɗo gerdude muɗum ha joni samorali aray bere moyen komi joguino kon fof e jama julɓe bere ko wallitimi ko ha joni samorali fayintumi ɗo tori ballal ko saballa ene laaɗo aray wallitede koyengal ngal no iriti o tampinimi moƴƴa fewdo ɗo mi ala e ɗanade jamma e ñalorma ɗo tori ballal jama julɓe ɓen fof kala man mo be ittirowo saabu e allah taway koyo no tori yo wallitolan assalamu aleykum haray fayintin komin jallama julde woni ko woni e wadde o message ɗo haray ko miɗo waɗi accident accident on noon o neeɓi gerdi e muɗum ha fewdo ɗo ɗo jama julɓe woni ko wallimi kono ha joni samorali haray miɗo tori ballal ka fiyalla ene laaɗo haray wallitede haray kala yiɗo on haray miɗo tori yo walliran sabu allah e nelaɗo muɗum mouhammadou koyngal ngal no tampini mi moƴƴa noon haray no tori ballal ka fi sabi allah hote annabijo haray kala ma yiiɗo on haray no tori ballal aray no tori walliteede puisque koyngal no tampinimi moƴƴa noon no tampinilam moƴƴa kono aray miɗo yakutori onon jama on walliteede aramiɗo bi ballal jama julɓe ɓen e ballal allahu wawɗo jërëjëf euh, kon nag euh, ñu daal di leen présenté sax malaat bi gis ngeen ko moo nekk noonu euh, gis ngeen tànk bi nu mu mel muy lu yéeme lu doy waar ndax nag gis ngeen feer bi mu yor ci tànk bi la nekkoon jékki na jékki ba tànk bi attanatu ko ndax defatul benn soin feer bi daal di wadd ndax tànk bi dafa demoon ba nëpp muy lu yéeme metti trop trop trop te amul benn ndimbal amul benn issue ndax nag euh, mënatul dem hôpital parce que amul lam fa yóbbu bu dee boo waree dem hôpital amoo sax paas bu la yóbbu yaakaar naa doo ko xalaat ndax boo demee ticket ngi lay xaar ordonnance yu dul jeex ma ngi lay xaar ginnaaw ba mu dundee fële ca ginne lu metti metti metti dem un an hôpital ba mujj nag di mujj di ndugg di togg ci biir hôpital bi ndax dëkk fa metti na trop euh, kon nag dama lay bàyyi nga daal di ñuy wax ci sa borom kër euh, tànk bi nii nii euh, bi weñ bi di wadd naka la demee woon. ah bu weñ bi bu wadd tànk bi dafa neey daal ba weñ bi wadd keroo sama dëkkandoor yi ñu jógee pour ñu yóbbu ko hôpital dafa sonnam torop tànk bi dafa neeyoon neey neey bu xamante ne loolu moo génnee lii. moo génnee tànk bi yëpp génn dét yaa may dégg ñii ñëpp jël lëkkat di wër si koñ bi. ma ne ah dañuy am fii suñu dëkkandoor ku feebar daal dañuy bëgg ñu jàppale ko. Hmm. après ñu ñëw fu wóor fii yépp ba ñu añ am ñu koy yóbbee hopital daal. Hmm. léegi nag ñu dem si hopital bi mu faj tànk bi mu commencé faj tànk bi mu mu defal ko analise boobu fekk na lii dañ na waaw waaw. Hmm. fekk defal ko analise a rajo léegi nag. affaire pansement bi mu wax léegi ña def pansement parce que fale dafa metti ñuy dem foofu douze mille la fay aller retour soo demee foofu. taxi taxi waaw taxi six dem sii mille ñëw nga may dégg soo demee yeneen saa yi dangay fay xaal si si kii bi si kees bi nga dem mu xool tànk bi pour xool rek nga may dégg après mu bindal la rendez-vous pour pour demaat mu mu mu wax la nga dem pansement après ñu ñaan ko mane léegi dafa bëgg a xam nga moyen bi amul paas bi ak kii bi amul daal pour mu def pour mu dem hôpital foofu def pansement léegi ñu wax na dem hôpital bi hôpital Caaroy bi ne nañ dem foofu léegi def foofu pansement waaye yeneen saay affaire bi daa nakari yeneen saay su ma su ma amee ku may may nii ay 1000 francs ay 2000 mu dem faju bi su ma amul. mu toog mu toog du dem. dañuy dem seetaan yu dëkkandoo yi ci témoignage léegi lay doon ñu dem xool quelques témoignages euh, daal del soit ci waxtaan bi ndax nag euh, li muy dund métti na trop euh, moom Wuri Diallo mi ñu dem xool yi témoignage yi ñoom naka lañ ko dundee léegi léegi daal dellu soit sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. tànk bi moom choc la choc la def. mais man choc bi xaw ma naka la parce que dafa yàgg waaw ñu ne depuis 2009 la seen dëkk la ko defee mais man damay toog fee sama place fu may jaay jabaram fekk mu foofu dama may mun a kaay xool sama jëkkër sonn na ma dal di ñëw xool ko mais bi ma ñëwee sama yaram day daw après ci laa dem sama benn dëkkandoor fi Amadou ma ne ko kaay ñu xool suñu dëkkandoor bi li ko dal metti na parce que tànk bi dafa amoon ay weñ. waaw weñ yi nanguwul génne te dafa sonnoon tànk bi di néew yi day yooxu guddeeg bëccëg ñëw xool ko léegi Amadou ne kon nañ ko ketal ma ne ko waaw léegi dañuy jël leket di wër ci koñ bi di ket di ko jox muy dem hôpital waaw muy dem faju mais hôpital bi instant yi li ñuy laaj dafa bari dañoo ket bi instant yi mënatuñu moo tax ñuy laaj et ku ñu dimbale rek ci tànkam bi rek te yàlla tax parce que metti na dama ko yërëm rek parce que dafa metti waaw état bi mu ko fekk dafa metti torop waaw loolu moo tax ma jàpp ci waaw parce que ëllëg xamoo naka la ak fan la waaw métti na trop métti na trop parce que en tant que jigéen des fois bu ñuy wax ak man dafa may naqari damay toog di jooy waaw li muy dund métti na loxoom jotul ginnaaw ak yor jëkkër ji nga xam ne feebar na nga dëkk fi nga xam te ngay fay luwaas fay courant fay ndox te sa jëkkër mi ngi nii tëdd mënul liggéeyut jabar ji dafa doon jaay beñe beñe fëriñ bi waaye instant yi liggéeyatul parce que mënoo di liggéey bàyyi fi sa jëkkër moom des fois du togg xanaa ñu dëkkandoori ku nekk rek boo toggee rek nga tibb may ko te xam nga loolu metti na daal ci jigéen waaw sa moroom jigéen di togg di la indil metti na waaw ku sañoon boo xëyee sa jëkkër jox la nga dem marché comme say moroom waaw waaw mi ngi kon di dem hôpital parce que ñun ba léegi tooguñu ñu ngi ñaan dimbal bu amee ordonnance dañuy dem jënd bu amee bu waree dem euh, hôpital dañuy ket waaw ak suñu benn jigéen bu nekk fii kodd non tànk bi moom wax dëgg yàlla moom hôpital bi waxaguñu ci dara lu leer waaw waxaguñ ci dara lu leer xamuñu danañ koy dagg wala dañ koy opérer parce que fii li ñuy laaj ci xaalis dafa bari te wax dëgg yàlla amaguñu som boobu waaw papier yaa ngi ne la ku ñu dimbali ko rek te yàlla tax parce que metti na trop. metit bi métti na torop jeex na tàkk fu mu toll nii waaw te yorut waaw ñu sañoon daal ñu dimbali ko rek te yàlla tax bu jaree lu lu mu jar ci tànk bi daal ku ñu mën a dimbali rek te yàlla tax nag mu dimbali ñu. jërëjëf euh, kon nag euh, ñoo ko gisandoo dégg ngeen ni nga xam ne rek euh, loolu la ñi nga xam ne ñooy yendoog moom wax muy lu doy waar chaque jour day toog di yuuxu. mu metti lool nag euh, waaye amuñu ci benn pexe ndax yenn saa yi mu war a dem hôpital du am sax paas bu ko yóbbu bu dee boo waree dem hôpital à chaque fois mille francs ngay dépensé mooy taxi bi aller retour euh, soins yi ñëwagul leneen ak leneen ñëwagul euh, metti na trop. métti mm-hmm. mm-hmm. na trop parce que man tamit li ma gis nii damaa feebar waaye mm-hmm. mënatuma toll. da feebar waaw. damaa dama am diabète ñetti at nii am diabète. laajal kii keroo dama daan fii ma dem fële ñii moom ma moo ma wutal lu may yóbbu hôpital kii ma abdu mhm. ma dem foofu mhm. foofu laa yenn ji ba guddi sampal ma ndox defal ma pikiir mu wàccee sukkar mu wàccee waaw sàkk kii daal sukkar bi de may daaneel maa ngi nii nu ma demee si pharmacie bi xool sukkar motul semaine waaye nee na sama bi daa yéeg mhm. waaye léegi lu may def soo amul amoo aw ma dara. war nga dem hôpital mënoo dem. aw ma dara lu may lu ma war a yóbbu hôpital sama jëkkër mu ngi nii di feebar moo ma war a defal lépp moom amul dara lu may defal. Hmm. léegi dama yor jaboot yu sew moom amul mbokk daal ku mag walla ku am dara ku mun a ku ma mun a jàppale daal dama am jaboot am feebar. Ah, yor ku feebar. yor ku feebar. Euh, sa dëkkandoo yi naka naka nga dundee ak ñoom. ah ba tey lii am ñoom ñu taxaw la taxaw la euh, nanguwuñ la bàyyi benn yoon ñu ngi si yow ñu ngi si sa jëkkër ñi ngi si say doom naka la loolu demee en tant ku jóge Guinée ñëw fi senegal ah man de de depuis ma ñëw fii daal may ma leen lenn maanaam jàmm asalaam ma ñëw fii bu sekkee a ñoom kaf areetaan. ku ma gis moom dama koo jàpp comme dama bokk ak moom day abaay mhm. xam nga dara ma may ma leen xol bu bon ñoom tam mu ngi nii musuma may dem ma ñëw si koñ bi ba léegi jàmm laa am fii kër gi fii laa dëkk waaye borom kër gi te ma jàpp kom man man doomam yi si kër gi mhm. soo gisee doo xam sax man borom kër gi bokk waaw mhm. ñëpp dama jàpp daal jàpp ma bu jàpp bu baax daal lu ma leen ñaanal na la yàlla may jàmm asalaam parce que soo toogoo añ amul kulay may dangay metti day metti dangay yor jaboot dangay fay luwaas dangay fay ndox dangay fay kuura soo amul ku jàppale looy def day ñii moom sama dëkkandoor yu baax la lu ma am fii lu nakari ñoom ñoo jàppale mm-hmm. su ma amee fii su ma feebaree fii ñooñ ñooy lijjante mu ñaan nit ñi dimbali mu ñëw yóbbu ma faju sama jakar su feebaree ñooñ ñoo koy ñooñ ñooy lijjante yóbbu sama jakar mu faju hmm. lu ma leen ñaanal daal ñaanal doomu aadama yi yépp yal na la yàlla may jàmm ak salaam hmm. nit bul wax kii sama deret la du dereti kese muy mbokk hmm. mbokk ku la defal lu baax kooku mooy sa mbokk waaw waaw yow tamit ku baax nga wallaahi ndax euh, bi nga ñëwee léegi yàggul yàgg boobu euh, duggante nga ak nit ñi waxtaan nga ak nit ñi ba tey jii ñu lay taxaw ci sa soxla mm-hmm. euh, bi ngay ñëw déggoon nga olof déedéet dégguma woon ah waaw dangaa baax dangaa olof moo tax dama leen topp yeneen nit ñi sax damay wax daal ma ne nga wax lii wax lii wax lii ma reetaan mun ma wax de damay mm-hmm. jaxase rek mm-hmm. ma topp leen topp leen ma dégg olof léegi dama lay tooñ léegi su waxee a ah, léegi dégg nga olof le <laughs> ma wax leen léegi mun naa leen jaay. waaw dëgg la waaw ñëwee fii. Mm-hmm. àndal ma benn pël. Mm-hmm. olof rek la àndal. Mm-hmm. ay ñii. ñooy sa xarit. ñii ay olof joolaa ñëpp booloo. ñëpp loolu dafa rafet mooy sama sama euh, sama. tey ñàkkul bés yoo xam ne metti na. dund nga metti mu metti. Mm, nga xalaat lu bari yan bës la. man maa ngi nii. billaahi su ma teddee guddi. laajal kii lu ma amoon yaram laaj ko laajal nii lu ma amoon yaram. Hmm. xoolal tey lu mu nekk maa jeex takk feebar yor ku feebar yor jaboot jaboot xamul amoo sama doom yi su ba toogee tuuti mu ñëw takkaw ma ne yaay may ma nii yeneen saay billaay damay mujjee jooy parce que yoratuma. Hmm. ma dem si sama mbokk yi julli julli saay kii su ma ñàkkee fii toog lu may toog kii walla kii ma may may. lu may lekk kii su ma gisee ma toog si mbedd bi rek walla kii mm-hmm. mu wax ma ne ah dangaa toog fii xanaa tey toogoo añ ma ne waaw tay aw ma lu may toogee añ mm-hmm. dem lijjante kii ma ñëw fii ba léegi du lekk lu ma lekkul du naan lu ma naan borom kër jabar yi nekk si kaw dama jàpp kon seen doom mm-hmm. du toog fii añi di lekk lekkuma sama doom lekkul billaay yeneen saa yi damay togg fii sama doom yi ni ndekki du ndekki sax ñu togg añu si kaw ñu woo leen kii mu woo ma dem lekk kii mu woo ma dem lekk lu ma leen ñaanal yal na la yàlla may jàmm asalaam dañ maa toppatoo may yërëm mu toppatoo sama doom toppatoo sama jëkkër ku la defal lu baax moom doo ko fàtte àdduna Mm-hmm. man di dund dund bu saay sax nga fàttali ngay dund ndax. jàmm bu la may billaahi wallaahi tallaay damay téye leen ne sama loxo bi billaahi ma fàtte ko affaire xalaat. Mm-hmm. bi daa metti dafa metti dafa yàgg des na yeneen ñu dem xolaat témoignage daal di soit léegi si waxtaan bi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. sama mbokk bu baax la. Mm-hmm. sama dëkkandoo la daal. te moom daa sonn ci feebar bi. wax dëgg yàlla fan yi bu fi ñëwee ba tey feebar bi bàyyiwu ko tànk bi yàgg naa ak moom fu ne dem na fa tànk bi daal moo ko sonal tànk bi de chaque jour de koy daaneel daal yenn tànk bi sonal ko lool ba mbokk buy dëkkandoo yëpp ñëw di ko seetaan tànk bi daal moo ko sonal moom daal bu mu ko dalee ba tey bu mu dammee ba tey mënatul mënul wér daal xaw ma nu demee noonu waaye tànk bi sonal na ko loolu la ah waaw daawoon na dem hôpital kay bu njëkk ba mm-hmm. waaw waaye bi ngeen ci ah kay bi ngeen ci jàppee ba tey mu ngi dem tamit ndax moyen bi bariwut te hôpital boo amul moyen doo mun a dem chaque jour. Mm-hmm. ñàkk moo tax kay dematul woon sax waaw ah, léegi na feebar bi gan koo daaneel nga boo fajuwul rek day metti mm-hmm. looloo ko jàpp xanaa yërëm ko rek jabaram daw na moom it wéeru jabaram a ngi ni moom it daa amee suukar feebaran na fi moom it daan ñu yóbbu ko kamba ñu ne ko daa am taraas daal wóorul na wàññi suukar ak yooyu te yor na njabootam gi dëkkandoo yi daal ñoo ci jàpp ñoo ci jàpp waa ñoo leen di jàppale njaboot gi xam nga rek dëkk bi daa metti dangay lekk dangay naan loo fi nekk rek il faut nga fay fu ñu nekk nii fu ñu ne fu ñu ne dañoo luwe il faut ñu fay luwe luwaas foo ñu lekk dund bi daa metti ñu ne dañ fi am sunu benn mbokk jullit boo xamante ni sunu dëkkandoo la kii nag moom boobu ba léegi ñu ngi jaayante ci moom tànkam bii daa yàgg man benn bés damay togg nii rek sama palaas di jaay ñu daw ñëw woo ma ne ma dañoo am fii benn malaat damaa bëgg nga ñëw ñu di dimbale ko jaalal ko mu am lu mu fajoo ma ne ko ah, man toujours loolu dama ciy sawar parce que ku nekk ku xamoon sa bopp ëllëg doo sonn. parce que nit ki loo mën a dimbale sa moromu julli danga koy dimbale damay dox ci yooyu te yàlla rek tax liggéeyal sëriñ Touba ma ñëw fekk ko fi tànk bi am ay weñ distance weñ yi toll na nii mënul dox nee na dund naa moom lu mat fukki at. weñ yi génn keroog bi ñu maa jaalee am fukki junne ñu yóbbu ko ci kancaaro bi infirmière bi ngeen di ko jot ñu ne duñ ko laal ñu jàllale ñu ci bu mag ba. bu mag ba ne duñ ko laal ñu jàllale sa tawoo ñu ne duñ ko laal ñu jàllale ñu iyaasoo ñu ne duñ ko laal ñu jàllale ñu géejaway ñu ne duñ ko laal ba mu mujj dakaar ñu jël ko bi bi mu toogee fii ñaari fan ci kër gi la tànk bi nëpp weñi wadd weñaay foofu ci biir da ko waroon a indi mu nga xool weñ yi weñ yi wadd na yi newoon ci biir tànk bi tànk bi dafa nëpp weñi wadd te booba demagul hôpital boobu fuñ ko yóbbu ñu ne duñ ko laal li ñu màjjaal ci la ñuy fay oto di def lépp pour bëgg mu faju rek fu ñu dem ñu ne duñ ko laal tànk bi nëm na moom ci boppam boo la wanee film yi ci téléphone yi tànk bi da doon xeel li bu ko tegee day teg mooso tànk bi di xeel li léegi ñu dem fuñ dem ñu wax ñu loolu fuñ dem ñu wax ñu loolu ñuy dund ak moom loolu yàgg nañ leen a woo pour ñu jot leen problème la léegi ñuy dund ak moom loolu moom ay mbokkam newuñ ci Pël la Fuuta la Gine la dëkk dooleem bariwut jabaram a fi nekkal yàlla def ko njaboot bu sew xam nga malaat bu tëdd amul lu mu lekk amul lu mu naan njaboot gi jabaram a ngi nii jabetit la moom it muy ñaari malaat ñu yor njaboot gu sew loolu metti na ñu nit dañ ciy waslu àq rek te yàlla tax ñu bëgg nag ku ñu mën a dimbali nga dimbali ñu te yàlla tax jëlal ñu ko en charge fajal ñu ko te yàlla tax lu waaye def sa bopp nga ko defal parce que ñun ñii tey bu suñu loxo joxoon suñu ginnaaw dinañ ko fajal suñu bopp parce que jullit bu ne jullit nga te nit loo dimbalee sa moromu jullit alal yomal xiyaam loola la yàllay fay te dimbale jullit dafa baax te kii ku ko dimbale rek yàlla dalay fay njabo jabaram ngi nii jabetit la te njaboot bu sew ay xale yi tuut tànk la yor gis nga lii moo nekkoon ci tànk yi jour boobu lii moo nekkoon ci tànk yi distance bi nii la def kii xam nga ne du tëdd ci lal lii ci tànk la nekk poids bi posé lu poids bi nu mu toll jour boobu la wadd dafa nëpp tànk bi dafa nëpp mu wadd fi ne ay pansement rek la ñuy def pansement rek la ñuy moo ko waroon dindi. lii dafa nëb wadd te gis nga lii fu mu jamu ci pooju nit nii la defoon nii nii la defoon dafa nëb wadd hôpital dindiwu ko de lii ci kër gi la nëbee wadd tànk bi nëb mu wadd fi mu nekkoon mu nëpp mu wadd fu mu waddee nag xam nga ne ñàkkul ne beneen vise bu koy retardé mu ngi ci biir. parce que kii nii rek jigéen la jabetit la lekkam matut njaboot bu sew lañ yore xale yi amuñ luñ lekk moom mii lekkam matut ñun dañuy jaayante di màjjaal lu ñu waay jox ñu ñëw mag dëkkandoo yi lu waaye am indi joxe ñuy dund ak moom ci loolu néegam bii day fay lu yaas du kër gu moom day fay courant te ko yor metti tàngaay arrangé wu la lekk dalaa war leen war bari na ñu ngi ñaan ngir jëmmi mu Muhammad ngir jëmi sëriñ Touba mi ñu yaakaar ku ko dimbali dimbale woo ñu de sa bopp nga dimbali parce que ku wéradi nga dimbale ko loolu jihaad la yaa ngi defal yàlla ñun defaloo ñu moom ngay defal. ñoo tax ñëw man dafa fekk may togg di jaay mu woo ma ma daw ñëw man de rek laa leen jàppee ak bëgg ku leen dimbali moom olofam setut jabaram olofam setut ay pël fuuta lañ man maa ngi ñaan ci yàlla ku leen dimbali rek laa bëgg. loolu rek laa bëgg te di ko ñaan yàlla. muy lu tooy euh, xol euh, dëkkandoo euh, liñ naan jàmm ci gën ndax nag comme ni ma leen ko waxee rek jamono ji ñi ngi fii nga xam ne mooy sax wuyoo tur bi muy jàmm gën ñu ñëw seet si tey ki nga xam ne rek mooy Diouldé jàlloo Diouldé Diallo nag di dund lu méttee métti. doon koo xam ne naam du mag noonu ma nga defoon choc fële ca Guinée choc ba nag metti woon lool lool lool lool lool ba mu defoon un an hôpital ànd ceeg ki nga xam ne rek mooy soxnaam siy toog boobaak léegi ñuy faj di jóg ko daanu mu metti lool lool lool ba faj bi foofu xaw a tàggatémbe ñu daal di koy envoyé fii ci Sénégal ba mu ñëwee wàcc jàmm gën daal di ut li nga xam ne rek mooy néegu loyaas boobaak léegi bu dëkkee fii tey suba mu dëkk fii ba ni muy ñëwee fii nii nga xam ne rek dëkkandoo yi macha allah jàppale nañ ko lool lool lool lool lool. ndax euh, nakaram mun nañ ne dëddu na ko ci jàmm euh, ñoom ñooy collecté di ko jox muy dem hôpital moom mu feebar yor ko feebar yor njaboot gu sew loolu yëpp mu boole ko waaye nag euh, sant yàlla ndax nag gis ngeen feer bi mu yor ne moo nekkoon ci tànku borom këram feer bi daa dema dema dema dema dem ba tànk bi supporteetu ko ndax nag feer dafa ànd ak soin ak suivi amatul suivi feer bi tànk bi daal di nëpp feer bi daal di wadd waddal boppam fii la waddee ci kër gi te ñu ngi ko ko defalee woon fële ca l'hôpital Dantec boobaak léegi nag euh, paj mi daal di tagga témbe ndax nag euh, bu fekkee mille francs nga war a demee aller retour hôpital yegg soin yi ak yi nga xam ne mooy ordonnance yi soog a ñëw day daal di metti lool lool lool euh, Mariama la kajatu jour bi feer bi di wadd naka la demee woon fii ci kër gi ak yow sa néeg la woon léegi xam nga bii nii la defoon. waaw léegi affaire bii deñ. waaw mooy njëkk deñ. waaw après euh, suba boobu bii tamit deñ. léegi noonu affaire bi lu mu deñee daal fii daa doon lekk kii yàpp da jël bant nga dindi yàpp bi si kii bi si buloom bi nii. ci waaw si feer bi dangay dindi yàpp lii nga jël bant nga dindi yàpp bi. boobu génnagul wala génn na. boobu génn na ba pare damaa génn di dindi yàpp boo pare ma jël morso fomp ko ba pare ma soog koo teg. léegi hmm? affaire bi si kaw fii sotti deret fii sotti dét affaire bu weex bi laajal kii ku toogoon fii sànq. munaas hmm. oto oto li nga ko yóbboon moom moo raxas tapis bi te feesal del deret a dét sama dëkkandoor yi moo indi woon oto ñu ko yóbbu hôpital fu mu dem ma ne duñ ko laal. ñu ne ndax lan duñ ko laal dañoo yaakaar daal sàggane tànk bi wala. nee ne affaire bi daa yàgg daal mu mu demee nii ba feer yi génn nee na mun koo téye mu mu envoyé fii ñetti hôpital si ñeenti hôpital bi mooy principal foofu la ñuy mujjee léegi nag foofu dafa def daal. wax benn wax xam nga hôpital xaalis la nee ne nañ ko faj mm-hmm. waaye fa mooy faj boobu il faut ñu génne xaalis yi parce que dafa am xaalis yi lu ñu war a fay foofu kay di lañu yóbboon foofu lu ñu mm-hmm. demee mm-hmm. xaalis yi ñii la dajaloon boobu analyse bi rajo bi ak constatation ak ordonnance dañu amoon si xaalis boobu mu jeex mu jeex léegi noonu dañuy war a fay foofu xaalis kay di jàmbu laa jël ci yóbbu foofu kay di ba léegi mu jëm ko jël kay di baa ngi foofu ngeen garanti ko waaw ñu koy téye foofu léegi nag nee ne tey dañuy war dem foofu sax ndax may na rendez-vous foofu mhm. si demee daal amee xaalis bi koy fajee tànk bi su ñu ko yobbee mu xool ba xam mun parce que tànk bi du du baaxati àddina ca. baax du baax ah, tànk bi yàq na carrément. yàqu na dafa gàtt affaire bi fii damb bi nekkul normal. ñoom waxuñu leen dara dañ koy. dagg wala léegi xam nga xaalis affaire xaalis bi moo tax mun ñu wax lu leer fekkee léegi am na xaalis soo demee mun na la wax tànk bi nii la koy defee dañuy dagg tànk bi wala dañuy. opère tànk bi mu mu mu kii defar yax bi. ñaar ñaar li ñu laaj bëri na. ah li ñu laaj bëri na. ah waxaguñu dara de parce que ñu demee foofu ma ne ah am ngeen moyen daal pour pour pour tànk bi ma ne déedéet amuñu benn moyen. dëgg yàlla billaahi yoruñu dërëm xanaa sama mbokku julli yi ma jàppale ma ñëw faj. ñu amee woon moyen du dem ba ba lii génnal boppam gis nga morso lu ñuy tàkkee fii gis nga gis nga lii ay morso la dafa diisoon si tànk bi. lii après waaw déedéet moom moo takk lii lii. ah moom moo ko takk. waaw affaire bi dafa diis après mu takk ko. mu takk weñ yi pour mu def nii daal. ah bi muy commencé génn la ko takkal boppam mu takkal ko boppam. léegi nag su moyen amoon. mais lii diis na de. dafa diis dafa diis. mu nekkoon ci biir tànk bi nii. bii kii munu woon kii toogu bu baax munu woon tëdd bu baax suy toogee nii lay def suy tëddee nii lay def mënatul dara takay fi tuuti. tànk bi néew. léegi fi mu ne foog somme yi leen laajte ngeen dajale lépp ba pare. waaw ñu soog ko mu doon nag tànk bi dina baax wala yàqu na. waaw léegi kay xanaa affaire xaalis rek la ñuy laajte demee tey yor xaalis su demee dina faju tànk bi ba mu faj loolu wax nañ ko moom mun neen faju moom gis naa foofu benn garab kooku nee ne dañuy foroon yax yi ñu koy foron waaye kooku léegi sant yàlla mun na dox waaw waaw mais mu defoon accident bi kooku foofu la nekkoon mais tànk bi dafa mokkoon dàmb ba yax yi génn dañuy foroon yax yi defu ci mbuus indi ko si hôpital mooy si kilo waaw. Mhm. kooku wér na léegi mun na dox normal nee na mun nañ faji tànk bi day daal waaye affaire xaalis la. Mhm. léegi léegi suñu amee xaalis li ñuy yóbbu demee da lay wax nii la ñuy war a def tànk bi walla nii waaye tànk yi xaalis doo mun a dem takaw. kon fi mu sax dematul pansement bi dafa war a dem chaque jour pansement léegi. dañuy kii dañuy xool soo amee ku lay dimbali may la waaye 2000 1000 francs wala kii nga dem nga def pansement soo amul nga toog fan yii hmm. yëpp demul. fan yëpp demul hmm, hmm. Euh, tey jii euh, ban bés mooy bës bi gën a metti bi lii amee ba tey Guinée ak fii. Guinée ak fii. waaw bés bi gën a metti bés bi nga dund bu gën a metti metti metti. bés lu ma am daal du. lu gën metti waaw ban bës nga dul fàtte. ah ba xam léegi lu ma dund daal ban bés moo gën a metti. Ah, ban bés moo gën a metti lu ma nekkoon feebar bi lu ma dalee ma dem xool ma ne man feebar dal na hmm. si hôpital bi. léegi kii ma ñëw tëdd si néeg bi moom mu ngi foofu di tëdd sama njabootu yi mu ngi ñëw di takaw ma ne yaay may ma lii papa may ma lii may ma jënd lii may ma ma jënd lii loolu moo gën a métti. boobu yaa ngi feebar. boobu maa ngi feebar di tëdd si néeg bii laa jal kii yi suñu dëkkandoor maa ngi feebar di tëdd si néeg bii. papa mi ngi tëdd. papa mu ngi tëdd ma yor njabootu yi sew léegi day ñëw takaw. ma ne yaay may ma ma jënd lii damaa xiif wala damaa nii nangam fekkee yoroo li koy jox. Mhm. loolu moo gën a métti. Mhm. gisee sa doom bi nga war a defal sa doom bi amoo nu koy mayee sax mu lekk nga dund boobu tamit neexul. métti na. dund boobu daal métti. Mhm. soo yoree ku feebar yow nga tane. biñ la waxee ne yow jabet nga am naka nga ko dundee. ah maa ngi nii. bés boobu naka la demee bu ñu la waxee da ngaa feebar nga dem hôpital ñu wax la jabet. damaa dem ndax jabet ku ko xam xam ne dafa xaw a cher. waaw yaa ngi amoo moyen. yaa ngi jëkkër bu feebar. waaw hôpital bi lu ma waxoon daal nee juróom-ñaari kuddu laa war a lekk daal lu ma wax lu lu ma war a lekk awma moyen boobu parce que jabet ay salade ay ginaar ay jën loolu lay laajte waaye loolu amatuma moyen pour ma jënd lool pour lekk. daa may dégg ma ñëw ma jóge hôpital ñëw fii xaw ma lu ma lu ma wax daal amatuma moyen boobu mm, mm. lu ma wax ma dem faju amatuma moyen pour faju boobu parce que kii mu ngi nii yi xam na ko mm-hmm. lu mu ñëw fii di xalaate damaa feebar di xalaate xalaate ba ma jeex takk kii mu wooma ma ne kaay ma ñëw ma ne abul ah, xalaat kon dala dal na la ba pare tooga nga nga jaaj ko yépp ci loxo yàlla dama jeex tak soo gisee sama photo dangay wax ak kii duma hmm. man feebar bi moo ma jeexal ak ñàkk ak noppal parce que kii tànkam bi su yënguwaatee fii duma nelaw hmm. duma toog duma takaw parce que dangay jël kii bi nga of tànk bi sa doom yi jànguñu. sama doom yi amatul saa aw aw ma nu may kiyee pour sama doom yi jàngi parce que ñoom amu aw ma nu may lijjantee mu am kayit amuñu kayit. Mhm. xale ñëpp mu ngi nii amul kayit mhm. pour moom. ma bàyyi la nga nga jaajëfal sa sa sa dëkkandoo yi. ñii ñi ngi làqatu ji jooy ñii seen xol fees na metti na euh, gis na kii fa mu toll metti na naam wéerul mhm. mais foo taxaw mu taxaw ci diggante euh, sénégalais ak guinéen mhm. Euh, muy wane rek ne ñu ñëpp benn lañu. koo mun a dimbali rek dimbali ko te yàlla tax. moom jaata la sant yow yaa ngi sant Diallo. sori na waaye ba tey fi mu ne nii lépp benn la. ma bàyyi la nga jaajëfal leen ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo taxaw. man ak ñi nga xam ne kooku di jaay lekk bàyyi lekkam yëpp ñëw ja taxawu la. waaw mm-hmm. man kay lu ma leen lu ma leen lu ma am lu ma leen wax. Mm-hmm. yal na leen yàlla may jam asalaam seen doom yi dund. yàlla mu am kii ni mu mu gudd fan fekk seen njëriñ doom yi mm-hmm. parce que sama dëkkandoor yi du ma mun a wax lépp sax mm-hmm. bilaay du ma mun a wax lépp mm-hmm. lépp duma ko mun a wax waaye ñii ñii li nga gis nii yàlla na lay yàlla may jàmm ak kenn du wax sama deret mooy sama mbokk man ñii moo yóbbu sama jëkkër hôpital gis bu foofu benn pul fuuta ñii moo yóbbu sama jëkkër hôpital ñi mhm. day jaay bàyyi njaayam di dem kii mu ngi nii jour boobu dafa jooy ba ba ba kii bugg daan fii ndeysaan ñi topp ma ba si hôpital bi amul góor amul jigéen koñ bi yëpp moo yëngatu indi mhm. oto yóbbu sama jëkkër hôpital loolu doy na sikk mhm. man lu ma leen ñaanal lu baax rek yàlla na koñ bi avancé am jàmm asalaam wallaahi ñii sama dëkkandoo yu baax la. ak kiy facilité tey jii euh, ñun suñu ñëw muy Awa Diallo. Mhm. waaw mhm. Awa Diallo tam. Mhm. Awa Diallo ñooñ ñooñ tam suñu suñu mbokk la. yenn saa yi dem may woo foofu. may ay ceeb. may ma 1000 may dama nga toogal xale yi. loolu benn yoon du ñaari yoon. moom ku baax la waaw. jërëjëf ñu ngi lay jaajëf dekkoon boru baax. Mm-hmm. dañuy jaay galaas saa su ma demee foofu ma yor xaalis pour jënd galaas. ñu may may may galaas bi ma demal. Mm-hmm. pour jënd demal may naa la. lan mooy numéro téléphone pour képp koo xam ne bëgg na woote pour jàppale leen. Euh, numéro bi mooy le 70 316 58 98 70 316 58 98 amoo beneen numéro. boobu kese la yor boobu kese la yor. waaw 70 316 58 98 mooy numéro bi nga xam ne rek euh, képp koo xam ne rek euh, bëgg na ko jàppale. ci ngay woote euh, madame Diallo mu nekk koo xam ne rek jamono ji jaaxle na ndax jëkkëram bi xam naa ci leen de lii rek weñ bii nii buñ ko yëkkatee rek ne la si tànku nit la nekkoon war ngaa xalaat ne kooku dundul jàmm waxatuma la nag euh, jaabante hôpital nekk un an hôpital Guinée nekkaat nag euh, ay weer fii ci jaabante ay ati at sax ci jaabante hôpital muy loo xam ne lu métti métti la euh, sa numéro bi am na Wave am na Orange Money. am na Wave Orange Money la am. amoo kon yow ma bàyyi la nga joxe sa numéro beneen numéro bi ñaata la. 78 507 98 14 78 507 98 14 78 507 98 14 wala ngeen woote ci beneen numéro bii di 70 316 58 98 ñaari numéro yëpp boo ci woote rek di nga mën a am ki nga xam ne mooy Mariama Diallo wala copinam bi di euh, Diatta ngeen daal di leen di jot euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy requête bi nga xam ne rek ki ñu ko envoyé doon koo xam ne moom it ku am yërmande la ci ñoom ñuy dëkkandoo muy Awa Diallo ñu koy bu baax a baax kon nag di jaajëfal tamit way juróom bu jigéen xam ne yàgg na ci social fii ci jàmm gën ñu jaajëfal la bu baax a baax madam Diallo di la ñaanal euh, xolu muñ di ñaan yàlla na ko suñu borom saafara di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci wàllu cadrage bi euh, amadu ndax Kebe ak ki nga xam ne rek euh, mooy Mouhamed ñoo nekkoon ci wàllu cadrage bi di jaajëfal bu baax a baax waa montage Lamine Mbengue Kouyaté ñëpp ñi nga xam ne rek euh, dugal nañ ci seen loxo waa production fàttewuñu kenn ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen joxaat dig daje mardi incha allah laata loolu di leen wax ne numéro yaa ngi noonu ñaari numéro yooyu am na Wave am na Orange Money képp ku ko mën a dimbale nga dimbale ko te yàlla tax sonn na toog tànk bi metti na day yuuxu guddi day yuuxu bëccëg dig daje maa di incha allah ci beneen numéro ak keneen ci li ci xolam fi amani la jàngeen jëf merci beaucoup à